Cinevision.com, la crédibilité notre credo. Sénévision.com World la to go Cinevision.com, kumpa gona gi ci Touba ab jàppante daal di doxoon ci diggante Baay Faal yi ak ay pël la ba benn bakkan daal di ci rot am ñu ci am ay gaañu gaañu jëye jooji mu ngi xewee ci Touba quartier bu ñuy wax si ci wetu ñaari pëna fi arrêt tata huit bi di tourné foofii la jëye ji daal di xew mi ngi xew ci waxtu vingt-trois heures jàpp une matin li ko waral ginnaaw ba nga xam ne Baay Faal yi sëriñ bi jox na leen digal ngir ñuy sàmm war may dëkk bu sell bii di Touba gannaaw ba ñu jàppee ne ci quartier boobu bii am na ay pël yu fa nekk di jaay wala ñuy jëfandikoo loo xam ne dëppoowul ak war may dëkk bi looli nag ngir joyan ci leen ci lu nu mel moo indi boobu jàppante ba pël yi daal di tiire kenn ci ñoom ba mu daal di ñàkk bakkanam am ñu ci am ay gaañu gaañu ba boobu jàppante bokk na ci li ko calmer police ak waa gendarmerie ñoo daal di intervenir ba ñoom takk der yooyu le jamono ji lu ëpp fukki pël jot nañ nañ leen a teg loxo par suspect maanaam ñu njort ne seen loxo taqee na ci lu ni mel loolu yi nag ab enquête moo ko mën leral la kon jàppante bi fay firndel ne ba legui ci dekk bu sel wi di Touba ndigal li nga xamne de Murita, sering des Mourides Serigne Mountakha mbaki bashir joxe nako ko mu melni ba legui amna ñu samonté wut ak lu ni mel jëm mujj nga xamne mo bok ci Baye Fall yi te daldi ñak bakanam ay atam mi ngi tollu ci fanwer ak turam di wuyo ci Moustapha ñang ñu daldi di jël ab koram yobbu ko ci morgo hôpital Madlabul fawzeni bu Touba ñi ci jot a am ay gaañu gaañu ñoom it rawale nañ la foofe ca l'hôpital ngir daldi di seen bakkan muy lu metti lu doy waar. ak senevision.com la crédibilité notre credo. senevision.com wóor la ñuy tëggoo senevision.com kumpa tàggoo nag yi.